as kan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu dee foxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah yi jàmm Sud Quotidien lañ koy daal di xëy dooree ci xëtam bu njëkk moo xëy nag and ak njiitu réew mi son excellence moo kii yéen kay bi dellu di xam le ni daal ma ne ko ah yëkkati na kàddu ko diisal na ko nee na nag lii mënatuñu cee wéy daal di am nag ñoñom wii askanam wii nga xamante ni moo leen jiite ko ñuy soxi bal ma ne ko ci seen kaw yéen bi dellu di xam le ni daje naag Aziz nag ca ma ne ko Addis Abeba yéen kay bi dellu di xam le ni Omar Gueye àdduna ca ñaawlu li nga xamante ne am na ndaxte nag doomu ma ne ko get ndar la ñu daal di rey moom mi nga xamante xamante ni it ab nappkat la woon di doomu Sénégal te nag garde ya nga xamante ni ñoo nekk ca waaxi Mauritanie ñoo ko def vox populi dellu di ñu xamal ni ñu daal coow li coow li moom moo ni ki démb de ndar géej dañu daal di merde sàmbara sax la ñu ànd ak ni ma ne ko dex gi daal di mel daal di dem nag te ña nga xamante ni ñoo di Mauritanie ya fa nekk noonee ma ne ko ñu taal ay boutique Macky Sall nag ma ne ko yëkkati ay kaddu rax ci dolli nag ma ne ko mu mel ni daal xaw na daal sax ci Aziz di président wu Mauritanie moom daal di jéggalu de yéene kay bi dellu di xam ne ni daal fitna jooju nga xamante ni moom la ndar daal di yéen yendoo ni ki démb ca capital ba yéene kay bi dellu di xam ne ni daal bu ñu na indi geneen ma ne ni na ne ko taroon te tàng ma ne ko foofe noonu nga xamante ni moo di ndar géej ni moo fa daal di rot te nag ma ne ko bakkan du jaay yéene kaay bi jàpp ni Macky Sall nag xam ne ni daal di koy xamle waaye nag yemuñu foofu rek zoom info ànd naag ñun ba ñu daal di faat yéen kay bi dellu na ni xam le ni daal ndar googu ni ki démb loolu moom moo fa daal di sumb loolee nga xamante ni moo li fitna jafa daal di am waaye bu ñu sukkandikoo nag ma ne ko ci nguuruk Sénégal nee nañ dootuñu ca yem de ndaxte nag danañu booleeg ma ne ko suñu nappkat yi gaal ya ñuy daal di yor danañ leen booleeg armée bi ñu daal di leen sàmm di leen ne ko xool seenu kaaraange ba fépp fu ñu di nappee tey yoon may leen ko ñu daal koy amal foofe noonu patrouille danañ ko daal di amal l'observateur yéene kaay di ñu xamal li ñu daal ni ki démb ndëgg sërëx ga ma ne ko daal di am nga xamante ni moo di ndar géej googu ginnaaw nag kañu daal di ray di nappkat boobee noonu yëral yéene kaay bi am ca lu la leer waaye nag ma ne ko yéene bi dellu na di xam le ni daal faatu ko kii di fàllu jaxate tax na ay lacrymogène jóg na fa de force de l'ordre it ma ne ko ñëw ca ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dellu di xam ne ni patrouille boobee noonu ma ne ko lu muy dëggal la Macky Sall nag ni mbir mi moom foog ma ne ko ñu daal di koy leeral de leeral nag la ñu bëgg bam ni nañ enquête yéene kaay dañu affaire d'état la ndaxte nag ñaari njiitu réew yi di kii di son excellence ma ne ko moo kii ak ma ne ko kii di Aziz ñoom nag dot nañu daal di daje yéene bi jàpp ni daal coow li moo di lan la koy seddal moo di nag ma ne ñu daal di ci ànd nag waxtaan ci toog pencoo ma ne ko sottante xalaat ci réew mi laas di ñu xamal ni ñu daal Macky ak Aziz fi mu toll nii mel na ni nag ma ne ko bëgg nañu daal di sottal wax ji ndaxte nag danañu toog addu ci mbir moomee noonu loolee nag ma ne ko yéene kaay bi dellu di xam le ni daal Macky ni moom ma ne ko fi mu toll nii dootu bàyyi mbir mi daal di wéy waaye nag émissaire ba ñu nag ma ne ko ci ndakaaru gii ci àllarba gi la fa seeni daal di ñëw ñu ne ndiit loolu de fërsu ne daal di waxtaane ci coow li réel yéene bi am ca lu la loo ca dégg daal réew mi quotidien xam na ni daal ñaari njiitu réew yi foog ma ne ko ñu daal di waxtaane diggante Sénégal gii ak diggante Mauritanie ndaxte nag am na lu fi jotoon na xew te kenn ñaanaatu ko yàlla yéen bi dellu di xamaat li di daal ndaxte nag ma ne ko ñii nga xamante ni ñoo di garde côte Mauritanie yi ñu nit sox ak balde ma ne ko yomb na leen loolu de waaye nag ma ne ko fitna jamu daal di am ak seen i ñoñ nekk ca ndar ni ki démb nag xamle na ko waaye nag kii di Aziz mu mel ni nangu na li nga xamante ni moom daal di xew kon Mauritanie nag moom fi mu toll nii baadu nag ma ne ko dañuy daal di fo am dañuy kafam déet ndaxte nag li ñuy daal di fowe daal jurul jàmm de les ko yéen kaay xëy di ñu xamal ni ñu daal ki démb daal ca ndar géej googee noonu la mbir ma daal di xewee waaye tax ma ne ko doomi ndar nag ma ne ko mer ba futt ca loolee waaye nag Aly Ngouille Ndiaye xam le na ni rapatriement wu corps ba nag Aly Ngouille Ndiaye jotoon na ci daal di laxas jaan ndaxte nag lam ci daal di jublu du lenn lu dul ñu daal di amal autopsie ba xam mbir mi nu mu toogee lépp daal di leer Dakar Time xëy di ñu xamal ni ñu dee moonte de ma ne ko kii di Macron jamono ji nga xamante ni ñi ngi naan war na amal ak ngan nii ci Sénégal ci bët gànnaaru réew mi ca Saint-Louis googu ñu yëg ni faat nañ ah nga xamante ni de ñoo di service secret wu ñi nga xamante ni ñoo di français yi ah ñu ne am nañu lu nga xamante ni doy na leen de Le Soleil yéene kaay ñëw ci Seydou Gueye tey porte parole gouvernement bi ak APR ñëw nag addu ci ma ne ko dialogue bi ak ma ne ko li nga xamante ni moo laxasu ca suuf ba ci parti àdduna ci coowul Karim Wade de mu ne nag ñii di parti démocratique sénégalais bu leen neexee ñu xool kañu tànn nag mu neex leen ñu def ko seenub candidat Khalifa Sall xam na ne mbirum droit commun moo laxasu ci mbir moomee noonu waaye àdduna tamit ci lii di dialogue politique bi yëral yéene kaay bi am ca lu la leer 24 heures xam ne ni daal dispositif marron beige bi ñu teg à Dakar Macky Sall nag fi mu toll nii de mel ne ni ma ne ko nga xamante ni moom la samp mbër wala ay baay faal yu jaadu da ko daal di sooxe ci moomam déet lu mu ci mënti dool daal APR de ma ne ko paaka ñaari boor la ci njiitu réew mi Macky Sall yéene kaay bi dellu di xam ne ni daal coowul Casamance geet laaj na dialogue ko ñu daal di koy gën a ca loolee libération yéene ñëw ci coowul wari ak ma ne ko mili mu dellu xam ne ni juge bi daal raxas na ci ay loxoom ba set wicc boo ca bëggee xam lu la leer ñu ne tribunal des référés de Dakar ma ne ko ah déclaré na ni de moom ma ne ko loole mënu ca daal di sëgg yëy yàbbi sur a di ñu xamal ni ñu nag fi mu toll ni AHS moom moom fi mu toll nii daal loo leen dëkkal nag fi mu toll ni doyu leen benn véhicule Toyota bu nga xamante ni dañ ko sàcc yeneen yu nga xamante ni ex directeur ma ne ko de service yi ñoom ñoo ko daal di yóbbu tàggat yaram record ñëw ak ñun di ñu xamal ni ñu Lamine Sané ca Metz pan toog stade yéene kaay wéyal ko ni mondial 2018 di jafara à Rennes ñuy xaar nag ay taalib yu meilleur buteur bi nag ak passeur bi di Messi devancé ci di Neymar suñu lamb yéene kaay ñëw ci ki nga xamante ni moo di Modou Lo di expliquer nag succès bi nga xamante ni am na ko ci Lac 2 nee na li lépp boo ko gisee nag yékki nee ko waral mu dellu di xam le ni nag kii nga xamante ni moo di Lac 2 may naa ko lu ne ci biir làmb jooju ñu seq waaye dafa mel ni daal mbër dafa ragal lékk ni nag la nga xamante ni moom la ko dimbalee Modou wax na ko de waaye nag bu fekkoon Lac 2 dëggal na boppam kenn dootu ko wax Modou Lo yamu ca nee na saison bi sax bu ca amoon beneen làmb dana daal di bëri Lac 2 nag ñàkk ga mu ñàkk yamalewu ko ci loolu rek de ma ngay xam xamle ni dafa lutter contre le gouvernement pas contre Modou ndax lan Lac de Guiers 2 nee na moom la ñu gën a bañ ci làmb ci ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bëri bu ko kenn ngëpp na ko ñëpp comp as loof ci yéene kaay yi jaa ngeen jëf